ax tey ginnaaw ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant ñi fi teew yépp di njëkk ci nuyoo yi imaam yi chef de village yi délégué de quartier yi di sant kilifa yu fi nekk yépp di sant jigéen ñi di sant ndaw yi am mbégte bu baax nag tey ci jël kàddu pour dalal leen waaye tam pour sant leen dalal leen ci teewaay bi nga xamante ni tey ñëw ngeen ko waa ICS def lu rëy mu di ay laago yu nekkoon ci Sénégal dans sa globalité ñu jàppale leen ba ñu mun a fàtte tuuti ci métit gi nga xamante àndoon nañu amoon nañ loolu nag su ma ko dee wax dama ci ànd ak samay naataango maire yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci arrondissement Meouane bi maire yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci département de Tivaouane waaye tam maire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci 558 communes yi nekk ci Sénégal kenn ku ne gis na ci boppam kenn ku ne am na yëg-yëg ci li nga xamante ni nii def nañu fi gën a sori ndax gis naa ñu jóge ba Tambacounda gis ñu jóge ba Fouta si fii ñu jox leen dans la même journée avec pragmatisme avec rapidité vraiment boole ci. xol bu set xol bu laab mais loolu aussi mënuma jeexal te ma madame Sandrina waxuma la ne ñoo ngi sant bu baax sa benn agent boo xam ne mu ngi yow muy faali fay pourquoi c'est les personnes qui l'ont nit ki faj ko neex na waaye booy faj nit boole ko ak di ko animer nee nañu faal yi di leen a marqué ñëw nañu di faju si waaye façon ba mu leen di tenir ak ni mu leen di accompagner réer na ci ñoom lool loolu tam jaroon nañu wax ko ndax yóbbante la te yóbbante àq la kon ñoo ngi leen di sant ñoom ni dañuy sant di gërëm waa ICS ci liggéey bi ñu fi liggéey li ñu fi def rafet na am na njëriñ et que ñi ci jàpp ñëpp ku nekk jëriñu nga ci patient yi yéen a ci njëkk a ndax am ngeen ci prothèse boo xam ne bi jafe na pour am ko ndax cher na lool ci dëkk yàlla dimbale leen ngeen am ko te génnewu leen ci dërëm kon loolu lu ñu war a sant ICS la di ci sant yàlla bu loolu wéyee ma ni techniciens yi ñoom ci seen bopp jëlee nañ ci lu bari ndax jànge nañ ci ndax patient yi benn patient bokkul ak moromam patient bu ne ni nga bindoo sa tànk ni mu bindoo walla sa loxo wala même sa jikko sa caractère donc yooyu yëpp ñu daje ci ak mille yu wuute kon jàngee nañ ci ñoom tamit lu bari bi ci des dama wax ni ICS seen modèle RSE bii ñu jël di jàppale population bi di fa di faj fa nga xam ni fa la affaire ba méttee teg seen baaraam fi ñu ko war a teg ba nit ñi mën a am ay prothèses di jóg di doxi seen soxla mais entreprise yi liggéey ci Sénégal yépp war nañoo xool ci exemple boobu te jëfee dans ce loolu mooy wax bi bi ci des damay sargal di gërëm suñu techniciens yi parce que nag lu njiig njaabe te yooyu ñoom ñooy njaag parce que ñoom ñoo nekkoon ci tàngoor bi nekk ci matériel bi di defar di rectifier ba patient yëpp am prothèse liggéey bu métti pendant ñaari weer sans repos mais loolu tam su mu ne nekk parce que Sandrina daf ci jàpp moom mi nga xam ni moo doon responsable organisé li yëpp liggéey na liggéey bu mucc ay moom tamit vraiment ñu ngi koy summil mbaxana ci loolu di ko sant di ko gërëm